min ba tey ñu ngi fii nga xamante ne mooy stade Amadou Barry ni ñu leen ko waxee woon kilifa bu ñu yàlla boole rek te bu dee oyof na ci moom dinañ ko ñaan même bu dee benn la jàpp ñaar ci ay minutes du ko weesu ndax farata bi ñu fi dajalee léegi mu tàmbali ñu ngi taxaw ki nga xamante ne mooy oustaz Pape Malick mbay boole wax dëgg fa yàlla kuy bàyyi xel waxtaanu kër gi dina ko xamee waaye it moom dama naa ko muy muy oustaz de fonction oustaz la nabien la Serigne ñu ngi lay nuyu di la ziara. barakallahu salaamaaleykum la nga nuyu waa SSP TV. wa wa barakaatuhu. espèce P TV ñoo ngi leen di nuyu baax a baax ñoo ngi leen di ziyaara di leen ndokkeel ci bis bi ci jotaay bi tabaarakallaahu ak ci jaamu yàlla yu sell yu yi fi daje ñoo ngi leen ci ndokkeel baax a baax baax baax Seydina Ali jërëjëf oustaz kii ñaari kàddu boo ñuy tënkal ana lan mooy njariñu xadaratul juma rawatina xadara bu dalal mbokki jullit yu toll nii jumaati jotaay la boo xam ne jotaayu zikru la te zikru daa bokk ci yàlla santaane waaye insisté ca soññee ca ñaaxe ca li yàlla santaane bare na waaye zikru képp ngay fekk ñu koy def fii ci àddina di ko def barzaq di ko def sax aljanna xam nga julleeg li muy rëy rëy rëy rek yow noppee ngaa julli woor noonu azaka noonu aj màkka noonu waaye zikrullahi jaamu yàlla goo xam ni am na fii am na alaxira màggam moom zikrullahi tax na yàlla bi muy santaane di soññe ci julli da caa teg ni julli gi nag fonk naa ko lool waaye zikrulay gi ci biiram moo ma dàqal sax julli gi te amul woon zikrulay zikrulay di lu yàlla fonk lool tarixatu tiijaan tijaaniyatu nag boole ci tarbiyaam boole ci awraadam miin loo taalibe bi jotaayub zikrullahi boole ci jotaay yooyu ñetti yoo xam ne sart la ci tarixa bi sart buñ ko waxee mooy condition pour nga nekk tiijaan fawu da am ñetti jotaay yii te mooy jotaayu werdu jotaayu wasifatu ak jotaayu xadratul jumaati ñett yi boo ci mënee benn am ci booy tële nekkagoo ab tijaan ñetti yëpp ngay man di def door a nekk ab tijaan boo ko manul nekkagoo ab tijaan loolu nag moo fi dajale tey mbooleem taalib yi nga fi gis ngir joxe seen ponk boobu ci seen tarixa ngir matal seen sart boobu ci seen tarix waaye ngir jëfandikoo jotaay boobu di zikrullahi ndax lu yàlla gërëm la lum soññe la lum santaane la lum ñaaxe la salaamualeykum wa rahmatullah waaleykum salaam oustaz ci question bu mujj ana lan ngay ñaax ndaw jullit rawatina ndaw kër gi ci xadaratul jumaa yeeg yi ni mel. barakallahu ndaw ñi maa ngi ci biir li leen di ñaax di ci ñaax sama bopp mooy gën a déggaat tariixa bi te mooy gën koo jàngaat gën koo jëfewaat mm-hmm. yarinu tariixa bi ñu amee ko. digle tarixa bi ñu tegu ca li tarixa bi di moytuloo itam ñu moytu ko ndax lépp moom tarixa bi yarnu la te yarnu mi ngi ci jiital sunu ruux bu pare yar sunu comportement ruux gay tax ñu mel na yàlla bëgg comportement yee tax ñu mel nuñ mën a jëfandikoo ak suñuy moroomi jaam fii ci àddina bi fii ci àddina bi moom comme ñoo ngi fi faatooguñu am na nuñ fi mën a nekkee nekkin wu yéwén nekkin wu yaatu duñ fi xat duñ fi yàqal kenn kenn duñu yàqal waaye fañ jëm te mooy àllaaxira itam nekkin wa koy yéwénal fii lañ koy léggéey ñaar yooyu nag la tarixa bi di santaane ñaar yooyu la tarixa bi di jàngale loolu laay soññ sama bopp di ci soññ ndaw ñi ñu gën koo xamaat gën koo déggaat gën koo pratiquer waat comme ni ko tarixa bi jàngalee salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam jërëjëf oustaz barakallah waaw mu nekkoon oustaz Pape Malick Mbaye boole macha allah ci jàngale bu rafet bi ci pédagogie bu oyof bi nga xamante ne sa niveau nu mu toll di nga ko mën a déggee ba tey pareeguñu nee leen di ngeen am en direct lépp lu doxee fii ci xadara bi ba ñu ngi fii ci biir stade Amadou Barry xadara national ab naaw xadaratu Tijaani sama caméraman Papa mu Serigne Babacar ci micro bi Cheikh Seydi Aboubacar mu Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour ci gam dara du